malikul haqqul am na mag ñu ma sa dal di laaj sëriñ Tuuba qaada lahu llahu maxtaara la cër bi Cheikh Ibra am ci xolub murid yëpp lu ko waral sëriñ bi ne leen yéen ku ma ci waxoon awal fii bo joge ci buntu ba ngay jaar waaye moom duma ko waxoon awal fii fa ma joxoñ lay xool du joge fa lay tay boppam ak lu fa mën a nekk bi ci topp mu ne am ku ma sa wax sëriñ tuuba qaada lahullahu maxtaaru lah dama bëgg nga dimbali ma baa mel ne ibra sëriñ bi ne ko faat na yéen ñi fi nekk ñu leen di wax ay murid sadiq kenn ku ci ne bi ngay dikk dangaa def sa bopp ñeenti xaaj benn xaaj bi nga séddu ko sa bopp benn xaaj bi nga séddu ko say bokk benn xaaj bi nga séddu ko sa boroom benn xaaj bi nga jox ma ko bura faal bi mu dikkee ñeenti xaaj yépp la ma jox boromam bi ko bind la njëkk a bàyyi am na kilifa gu sëriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara la ma sa wax waxal loo bëgg ñu defal la ko mu ne ko mel ne ibra faal sëriñ bi ne ko faat na waxal la neen maa ko tànn bu doon dund junni at fa ma ko yóbbu bu doon yooru di ñëw junni at du laal suuf mu ne ko may ma ma topp ci moom sëriñ bi ne ko defal nanu la ko ba tey sëriñ tuuba xaada lahullahu maxtaara la nee na Ibra Faal defal na ma loo xam ne kenn mësuma koo defal moo tax ma ne ko cas ak ñi mu àndal ne Moustapha am Moustapha nangu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na bis maam Cheikh Ibra Fall radiallahu taala anhu wére ji Sëriñ Tuuba qaada lahu llahu maxtaara la yebal ay ndaw ne leen dem leen seetali ma Ibra Faal ba ñu génnee sëriñ bi woowaat leen ni leen dama bëgg ngeen seere jëmm jooju ngeen jëm ne la dalee ci tawari boppam ba ba ca weyi tànkam ya lu cay metti liggéeyal maa tax sëriñ Tuuba xaada lahullahu maxtaara la mas naa woo Cheikh Ibra Fall radiyallahu taala anhu ne ko addiye ji agsi na waaye du loolu laa lay doyee ana lu ma lay doyee boole laag aji bind ji ngeen doon kenn dañu ko jottalee Cheikh Ibra mu ne loolu neex na di sëriñ bi ne ko loolu laay def sëriñ Tuubaa qaada lahullahu maxtaara la mas naa wax sëriñ Mbàkke Juuf ne ko Ibra day góor la mu ne ko waaw Mbàkke sëriñ bi ne ko bi mu jëmee ci man jóom waaye defe naa ne noxuma ko bi mu dikkee bàyyi boppam bàyyi ay mbokkam bàyyi yàlla mi ko bind ngir sama ji defal na ko lo xamne moko gënal bopam gënal koy mbokam te wu ko yalla mi ko bind nga xamul ne buma wowon ibrafal mu ñew mané ko yalla mi taxoon nga dima top topatu mako du tax mu delu gannaaw ci top gi mu topone waye def na ni manit fayna ko ndax bu dajale won ñi mu andul ñepp ne leen ki taxoon ngeen di ma topp wàcc ko bi tax kenn delu gannaaw serigne touba qada lahu allah maxtaara lah mas naa wax shahira faal radiallahu taala anhu ibrafal bo ci rew mi lo xam ci man lu mu tuti tuti bu ko wah wax ko ko ñetti yoon mu dem dikkaat ne ko ko wóoluwut wóoluwu la manit lu ma la lëggee lu mu tuuti tuuti mu ma ci fay dara fii ci àdduna sëriñ bi ne ko sàmm bi bu jiitalee géttam ba ca mbalkaam lee géttam ba ca mbalkaam lee géttam ba ca mbalkaam àgg mu làbbali ko ba mu fees mu di ko jukki ba mu yër pind ba mu ne ko tëyit lagg wuti mbalkama di ko ca sotti ndox yee rot ci diggante pind baag mbalkama ndax sañ na koo bañ mu ne ko déedéet sëriñ Tuuba xaada lahullahu maxtaara la ne ko loo gis ci àdduna noonu la demee waxtaan woowu ku dégg wolof dana ko mën a jàpp bu baax a baax sëñ bi dana ko rek ab sàmm bu demee dugal goj baag baag ba ca teen ba di ñoddi di ñoddi ba baag bi def ndox génn ci biti fees dell muy gaaw nag bëgg koo sotti fa mu koy sotti diggante ba mu koy génnee ci buntu ten ba ak bam koy sorti ci fam koy sorti ndox ya fay rot fi suuf ca diggante ba xam nga ne lu ñak so lay doon te samba munu ci dara tu ne ko nak lo gis ci aduna muy nuru ak pay ci li nga ne tok rek rote ca baag ba loo mënta ñàkk gis la waaye jote wut ak sag pay dara sëriñ tuuba xaada lahullahu maxtaara la mas naa rëdd aw rëdd wax ne ku ko jéggi tàbbi sawara maam cheikh ñëw jéggi ko sëriñ bi laaj ko mu ne ko man yow rekk laa bëgg bëgguma àjjana sëriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara la nee na Ibra bàyyi na boppam bàyyi na ay bokkam bàyyi na boroomam ngir man waaye defaral naa ko boppam boole koog ay bokkam marale koog boroomam boole naa koog ñoo xam ne bu ñu gënul ay bokkam ñoo gën ci moom ay بكم فإن توبا قاد له الله مختار له نينانيو بمسانة جس لتق سبير كرغي دنان خنا إبرفال جسوكو سوارا مسنا لاج والم سرين توبا قاد له الله مختار له كلمي جوخي سرين بي تونتو كولي تكتلنه amul jenn lor léppam njariñ la bi sawara naagoo ba wàññiku sëriñ bi ne ko ku masa diingat Ibra Faal sëb la bu ko jéggalee nga xam ne moo la ko xañ des na ay wax wax waaye nu far yam foofu ذلك الحق المبين شيخ برأيو كرير ياكو جندي المريد هو دمام شيخ إبراهيم فال